réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la toll. bis la woon boo xamante ni kenn dootul ko fàtte wala yow mi nga xamante ni yaa ko fekke woon dootoo ko fàtte mukk nekkoon bis bu métti lool nekkoon tamit bis boo xamante ni bu tàng jër la woon foofu noonu ci kanamu mairie bi nga xamante ni mooy mairie Mermoz Sacré-Cœur te ay jamono ki nga xamante ni moo di Barthélémy Dias moo ko jiite woon. foofee nag ab xew-xew bu métti amoon fa mu doon ay jàppante yu métti ba ñu ne sax ba ñuy tuumaal ki nga xamante ni moo di Barthélémy Dias moo tiiri woon ab balu fetal ki nga xamante ni moom la ñuy wax Ndiaga Diop te jamono boobee sax ñu ko doon woowee ab nervi jamono boobee nag jamono 2011 la woon waaye nag mën nañ ne loole nag am na lu bees lu si xewati muy ab atte boo xamante nii war naa am si diggante ki nga xamante ni nag moo di Barthélémy Dias ak ndem si yàlla chose comme suñu borom bi jëlee na ko fi. waaye Barthélémy Dias ne ak mbir moom moome nag mën nañ ne dinañ ko àtte le 22 décembre fi nga xamante nii moo di Cour suprême kon nag dinañ xam bu boobaa ndax Barthélémy Dias mii nag yoon da koy daan wala nag da koy setal si li nga xamante ni moo di mbir moom ñu ko doon tuumaal.